xam jigéen ñi nga fekk sa tey fekk nga bi jigéen ñu nga xamante ni jigéen ñu mat a dimbali lañu ndax yàlla dafa def ñun fii si bar ñi pêche rek la ñu am te boo ne pêche wax ak euh, produit euh, produit halieutique te ku nekk xam ne ne ak Covid bii tey gaal yi fi daan jege ku nekk xam ne ne Dakar amatul jën donc gaal yi dañ fi doon jege di dem ba ay euh, région de Thiès ba dem ay Ziguinchor dem ba Banjul di fa seeti produit yàlla def ak Covid bi kenn mënatu ko def donc ñun amatuñu lu ñu lu ñu pro jën lu ñu transformé mais lii nga xamante ne moom nga fi andi madame la ministre ñu ngi ko toyal ni ñey ak nu mu mënta toll rek dañuy sa parce que yàgg nañ fii bu ñu amee suñu ministre tutelle ñëw fekk fii fekk suñu pour jàppale ñu lépp li nga bëgg ci euh, xaalis boobu di ñu ko def li nga xamante ne ay jigéen lañu dañuy li dañuy leble lu ñu leb nañ ko fay lu ko ñu may na nga xam ne sa wërsëg moo fi di ñaan yàlla li ñu am tey yàlla nañ ko amaat baneen yoon naa ñu ko amaat yoon ndax bar ñu rëy na yaatu na te jigéen liggéeykat ñoo fi nekk. madame la ministre solo. jóg ñëw di seet si les femmes yi nga xamante ne ñoo nekk ci domaine horticulture. madame na ministre ñu lay wax ni yombatul ci secteur bi nga gis jigéen buy bay am courage ak engagement ak détermination moo ñu dese ci àll bi. ndax tay bo ñëwoon ci tool ba mbala nga ñëw ci secteur bi di visiter man naa wax pratiquement sans mbokk jigen yi man nañ ma sédé ñu dess ci all bi di bay di jigen barétu jappalé jigen yi mën ta passé nga déplacer wu ñëw di sét ci ñi nga xamante ne ñoo nekk sur le terrain ndax bo togué rek do xam ña ñoo nekk sur le terrain mais déplacement liñ euh, euh dajé woru waaye ko fekk sa da nga xam lan lay liggéey and na ñoom yow nga dem gorom fekk fa ñi nga xamante ne bii ñooy jigéen ñi jàppale leen ci ay financement ñu ne deetawaat nga jaay nga jaar fi nga xam ne mooy bar yi fekk jigéen ñi nekk ci quai de pêche ba boole leen ak ñi nga xamante ne bii tamit ñoo nekk yéen jàppale leen ci ay financement ñu ne loolu doyul nga ni da ngay ñëw fii nag biir Tëngéej fekk ci leen fi muy Rufisque ville jàppale jigéen ñi yëngatu ci wàllum coppi jën ñi nga xam ne ñooy les femmes transformatrice les femmes mareyeuses ak ñi nga xam ne ñooy vendeuses de poissons yi yemoo ci loolu mais tamit jàppale nga ay femmes yoo xamante ne ay couturières lañu ay coiffeuse lañu ñi nga xamante ne bii dañuy yëngut ci lu baree bari financement yi nga indi nag ñu ngi ñaaxaat jigéen ñu jëf ñu jëfandikoo ko niñ ko war a jëfandikoo kon madame la ministre ñu ngi lay wax merci beaucoup ci noonu nga taxawoo jigéen